asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar ah. di leen bëggee yu ñuy suivre sur euh, wasaare lamb wasaare TV tey nag euh, wax dëgg yàlla ñu ñëw fii ci ki nga xamante ni moom mooy centre de santé ah, bu Hann bel waaw ñu ñëw ah, fas yéene waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy un arbitre boo xamante ni muy Tidiane Ndiaye ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom mooy làmb ak fas yéene nag def li nga xamante ni moom mooy sensibilisation sur le virus bi nga xamante ni moom mooy euh, coronavirus <laughs> <laughs> waa gis ngeen ma tey ah ma def sama masque nii rien que pour vous faire plaisir les amis internautes naan leen Fatima ah, ki ni xamante ne moom moo nekk nag ci li nga xamante ni moom mooy ci kii bi ngeen di gis muy leen l'infatigable kon ni ma koy xee rek Basirou Diouf aca Basirou topp ma ñu dem. asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb sur Wassare TV kon niñ koy defee rek lañ koy defee tey nag euh, ñu ñëw seet si koo xamante ni arbitre la. mu nekk koo xamante ni dafa bokk ci xeex bi te ñu ñëw fekk su ko nag fii ci bërëbu liggéeykaayam mu nekk centre de santé bu Hann sur Mer may wax rek nee naa la arbitre ne loolu doomu nekkul seen métier nekk ci làmb ji non kenn ku nekk am na ci loo yëngu te nañu ñoo seet si ki nga xamante ne moom mooy Tidiane jaay ñëpp gis nañ fa yi sorti yi gars yi def démboo suñu pàppkat yi def na am na benn sortie bu mu def tey nag ba léegi dañu topp li nga xamante ne moom mooy bi ah di wax nag wax dëgg yàlla feebar bi nga xamante ne moom moo fi nekk yal na yàlla génne feebar bi yëpp di wax rek kon li nit ñi wax rek ñun ñëpp daal nañuy fagaru waaw incha allah ci kàttanu yàlla kon ñuy wax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar kenn ku nekk daal la nga war def ko def ndax ñu dàq feebar feebar bu dem di ci masawu nag képp koo xamante nii rek wala dëkk boo xamante nii ah feebar bi dugg na fa di ñaan yàlla mu génn monde entier li ñuy wax rek monde partout dañuy jox nag ki nga xamante ni moom mooy suñu invité ñu wax mu mu mu nuy internet yi après nag ñu continuer waxtaan ah Cheikh Tidiane maa ngi lay nuyu. waaw Fatma ñu lay nuyu bu baax di la masawu encore une fois parce que depuis que travaux yi commencé à Hann surtout terre bi. Yaraax dafa xaw a enclavé wu un peu si yeneen côté zone yi daal moo tax ñëwoon fii day xaw a jafe si yéen tuuti daal encore une fois di masawu la population sénégalaise par rapport ak virus bi dugg ci dëkk bi xaw fi lëmbe dëkk bi trop trop trop daal mais par mesure de précaution le chef de l'État est en de faire benn liggéey bu baax kon ñun population bi ñoo ko ci war a jàppale parce que bu nga ko falee pour defar dëkk bi la te tey lii dugg si mbetteel la ci ñëpp njaaxare si ñëpp ñëpp war cee li comme ni nga gisee rek ñun au niveau man fi may liggéeyee fii jël nañ mesure de précaution yi nga xam ne bu maximumul sax minimum na daal pour que ñu jéem a prévenir feebar boobu daal ñu ngi teg à l'entrée peut-être que tout ce qui matériel pour jéem a préparer wu dans cette fièvre là ainsi de suite personnel itam ñu ngi leen di jéem a defal le minimum parce que maximum bi amu fi mais le minimum boo xam ne mën nañ ko def pour feebar bi jéem a éradiquer wu daal vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax di nuyu encore si fois. sunu mbokku arbitres yi mooy commission centrale des arbitres bi nga xam ne sunu président Sitor moo ko jiite ñu ngi nuyu ñëpp non waaw waaw suñ ñun ñu dàq. ah dàq. si dàq nañu ñun war Sitor lañu bind ne dañ ko dàq. Sitor mooy CCA ndax Sitor sunu baat la fa demee. Sitor waxalewul boppam waxalewul bëgg-bëggam waxewul dem yéeneem. bala ñu laa dàq dàq dafa xew de. <laughs> ñun ñun ñun presque dàq nañ ñu ñun presque dàq nañ ñu loolu moo tax wala suñ suñ médecin baa ngi nii du ma draay nag ñii la leen dàq <laughs> donc cela veut dire que ñun amuñu peut-être que ne beneen amalgame boo xam ne lu dul que ne un président moo fa toogaloon di waxal arbitre yi. donc boo déggee waxal arbitre mu ne wax ne ne ko yéen ak seen waa kuréel dàq nañ leen looloo gën rafet ke yow dàq mel ne kon dañu am un parti pris envers lui. te or ko loolu warul demee noonu daal parce que bu quoi qu'on dise Sitor a travaillé pour le CNG Sitor a travaillé pour la lutte Sitor a fait beaucoup de choses pour sacrifier peut-être toutes ses énergies ah boo ak moom ak ak ñu def sanction yëpp ah. man maa ko jiitu Dakar Malick la woon moo xam ne ci dans les régions ne woon bi muy jàngale ba affecté ko Dakar ci la ñëw fekk suñu CRA Dakar tey il a fait corps et âme pour être là où il muy nekk jàmbaar nag bëgg làmb et mën a jàppale làmb te ñoom waa CNG yëpp ku ci toog waxal ak yàlla rek nga xam ne maa def na travail bu extraordinaire au niveau ci euh, arbitre Sénégal yi. Babacar. Babacar mooy sunu président mooy le président de la lutte. président commission chargée de la lutte sans frappe tey jii drapeau chef de l'État bu amee xool drapeau chef de l'État bokkul ak bëre ñuy def fii lutte traditionnelle ce sont les yoo xam ne forme d'étude dafa bari dafa doy waar Babacar mooy coordonner tout ce qui est au niveau de la lutte simple donc lépp loo xam ne ci liyoom ci loxoom lay jaar ci loxoom lay génne donc kooku tam bu demee ba toll niveau boobu ñu nekk yow it añ nañ la lan def. Dramé nag. Dramé moom Thiès la dëkk moom mu monopole lutte xam nga Dramé ñun dañu décréter ko vendredi à partir de vendredi on va faire week-end sensible ñu wax ko Dramé en tant que président CRG président commission régionale des arbitres de Thiès ñu wax ko moom it mu eggale ko ay ay ay mbokkam. rek xanaa peut-être loolu ñu ñoom ñu toog peut-être ñu comme Dramé wax ñu nan nañ ka ku nekk daal bu ñu daggee sa bopp xanaa nañ ne booy dund dund wax quoi. kon daal seen sànni tàccu yi daal lañ kii lañu teg na le. boo ko déggee noonu baax na kon suñu suñu yaakaar yi bokk moo ma doon lañ boobu ñi nga xam ne peut-être que tey ji yàlla def na ñoom ñoo jiitu ci CCA bi ñooñu leen coupé seen bopp soi-disant mais dañ xam ne ñun ñëpp leen coupé suñu bopp ñun amuñu ci bañ a daax waaw doo dégg ma ne la bu ñu daaxee si tool ñun ñëpp daax. tey ngaa bañ a bàyyi li nga wax ba la ñu laa dàq. <laughs> waaye ñun boog danoo gis suñu biir ne bu ñu daaxee si tool rek daax parce que quoi qu'on dise. Mm. dañ toog réunion vraiment affaire bi di dem di dem di dem ba toll à un moment boo xam ne si tool li mu ñu kiy bay bayal dafa bari si yoon li mu ñu apaiser dafa bari te commencé par ñun. c' est dans les régions yi nga xam ne foofu la commencé woon di kaas di kaas di kaas Sitor demoon na ba moment yoo xam ne sax dafay ragal sax di jël seen appel parce que day dem ba defe ne ñoom daf leen di léser quelque part bu ñu ko toogee en réunion la nan leen ko toog waxtaan ko bu ñu ko waxtaanee ay une fois yàgg nañ ko wax CNG di wax di wax di wax te facteur boobu peut-être que ne moo feeñ wax ji ne naan xamoon nañu naan ay noo def ngeen lii yàgg wax ne CNG nañ jàppale ci ci assurance ci lii ci lii ci lii ci lii mais ñoom tout le temps bu fu nu mujjee ñun ba lii am mooy li ngeen di wax mënuñu ko. loolu rek moo indi mais amuñu benn amalgame boo xam ne def nañ ko par rapport CNG ñun gis na a à par le président Alioune man wax naa ko ci benn interview mu ñun bu ñu koy déglu muy wax dañuy mel ne un messie buy wax. Mm-hmm. ndax dañ ko bëgg. dañu xam ne gor la dañu xam ne mu ngi def yow mais lii mu def nii tegu ko fet xaw ma lu tax nag tegu ko fet. gor la woon daal. gor la. mais dama ne li mu def nii tegu ko fenn. xuloon nañoo ak ñoom nag mais dafa mel dañ koo bëgg ba léegi amul. du question non mosuñu bañ Alioune Sarr mosuñu bañ CNG. mais la façon doo ñi ñuy doxalee ak ñun xaaruñu leen woon foofu. yàlla xam na xaaruñu leen woon foofu. ñoom si seen i wax am na ñu ne ñun bett nañ leen mais billahi bu bett da am ñoom ñoo ñu bett trop. parce que doomu nday ngeen woon. <laughs> non ba gëm naa ne ba tey loolu am na peut-être nag comme li ñuy wax rek nit des fois di nga jiite benn affaire ba defe ne yow da nga moom moom la monopole du savoir par rapport ça war ko yàlla demewul noonu gis nga àdduna léppay jeex àdduna léppay jeex. kon bas su ma juumu li di wax dëgg la ah arbitre euh, arbitre yi ak waa CNG ñoo far kon nañu waxtaan ba juboo dafa mel ni sax loolu la fi wax de su ma juumu. ñun damaa mën maa CNG lañ ñun mënuñoo liggéey loo xam ne xam nga CNG lu nu boole moom ay texte ñun dañu jël suñu xaalis def formation pour être arbitre. CNG jox ñu texte yi ñu nu war a formé for ñun Abdou Badji ancien directeur technique moo na formé xalifa Sow directeur technique actuel moo na formé dem si yàlla pa ñoxor di ko jaala encore monde de la lutte suñu pa boo xam ne la tey jii lii bu ko fekkoon je sais ne dina ci am gàcce bu te xam nga tey li ci gën a garaaw mais pergason nee na <laughs> nee na pour arbitrer rek dafa yomb ko waaw moom xam nga nit ku nekk itam da koy bàyyi dégg-déggam da nga koy bàyyi itam ak xelam moom xelam foofu la toll waxinam foofu la toll nan ko bàyyil rek waaw boo déggee waxinam non parce que dafa ne moom li muy def nii businessman ku nekk mën na ko nekk ku nekk dalay yàlla dafa am loo xam ne da koy dénk moom yàlla dafa am lu mu ko dénk mu ngi ji yàlla na ko ci yàlla ñoo nattoo ñu ngi ci arbitrage ñu ngi ci nanu bàyyi nekk nekk rek yàlla dafa def ko def ko kii mu nekk promoteur boo xam te ni macha allah dëgg ay làmb ñu ne itam yàlla daf ñoo nattoo ñu bëgg làmb dugg ci arbitrage bëgg a jàppale làmb noonu la rek pourtant ci li muy da ci def ay Gaston nekk promoteur bu mag na lay defee erreur non adduna ku def erreur yow yaa ngi nii da def ay toj toj sa liggéey des fois ñu lay corriger noonu la rek adduna moo demee noonu ñun ay doomu aadama duñu ay xutbu samaan duñu duñu wàllu du dara ay ordinaire lañ nii donc ci li ngay liggéey ci ngay def erreur bu nee arbitre ku nekk mën na ko def certes ku nekk mën na ko def mais nag ku nekk balaa nga koo def itam dans la loo war a mënti def ba nekk ci un professionnel wala nga nekk ci un un nga jaar sur formation nga nekk amateur nekk un professionnel mën na am mais day am exception ndax règle boo gis am na exception koo xam ne jàngul dara génn de nulle part nekk quelque loolu day am yàlla da koy def mais nag bariwul ci àdduna bariwul loolu la rek. ñaata euh, ñaata at nga man pour dire vrai ñi nekk fii ci au niveau CCA si toor ñooñu fi jiitu euh, Babacar euh, ak ndem si yàlla ñoo xam ñoo ñooñu jiitu woon foofu mais ñi des ñun ñoo bokkandoo lot de formation bi ñu defandoo ñun 27 97. ba léegi ñu ngi ci waaw. waaw ñaata journée yu mag nga mës a arbitré. certes arbitre arbitrage trio la mais bu ñu demee ci trio ba chef de corps bi mooy désigner chaque combat ku ko war a arbitrer xam nga man dinaa dem ànd ak trio mais du ma xam ban combat laay arbitrer mais nag am na ay combat yoo xam ne arbitré nañ ko man bokk naa ci combat Modou Lo Gris Bordeaux bokk naa ci combat Yékini euh, Balla Gaye arbitre naa combat Zos Papa Sow arbitre naa Ama Balde fëgg la Garga Mbossé Boy Niang maa ko arbitré ainsi de mais nag juun nit koo xam ne nga nekk fii di am di pas mal de choses jaar nañ fi yeneen yeneen ak yeneen ak yeneen waaw na bari na. ñu dégg tamit euh, suñ papa du ko mu ne yéen kenn mësul yëkkati téléphone am woo ko ci affaire bi ndax ñu ngi ko doon tooñ sax naan ko kenn xamul fu mu far mais nee na yéen kenn mësul yëkkati téléphone am woo ko. oo ci pour waxtaan ak moom ci affaire bi ba pare ngeen bëgg koo dal. non ñun du jaañu ko waxuñu ko dara de amuñu droit yi tam woo ko. parce que moom président des amateurs ñun duñu ay amateurs ñun ay arbitre lañ sous couvert du CNG. ay arbitre ñun bu ñu amee lu ñuy wax CNG lañ koy waxal en l'occurrence le président parce que bi ñu amee sunu mémorandum joxe ko dañ ko jox au niveau bureau CNG dinaa xamal benn affaire CNG boo fa demee réunion am Alioune Sarr bu ñëwul presque réunion ba. dañ ko def nii def situation yi dem boo fa tegee courrier correspondance dara dara du jàll. Uh-huh. il faut ay saa ñëw ba toog ñu gi lii courrier yi ñëw wax seen xalaat mu entériné parce que nag moom la yàlla def ne moom mooy jiite CNG donc dafa am benn voix prépondérante par rapport à à à, à la réunion. donc bu ñëwee gars yi teg courrier yi kërëb kërëb ñu nag si courrier bu ñu demee ba euh, def divers di def kii. à tout tout moment si tool dina dugal suñu lettre parce que tam loolu mooy li nu gën a soxal ci si suñu suñu kii bi dugal leen suñu lettre ñu wax ñu suñu mémorandum lan la ak lan la ak lan la quoi pour ñu affaire bi jàll daal loolu la rek mais du jàjjo ko ñun amuñu droit pour woo ko pour wax affaire grève yàlla xam na wax parce que comme amateur la moom moo xam ni muy interpréter ñun li tax ñu kaas amateur ñoo xam ne ñu am ñun woowuñu benn amateur pour wax ne ko ñu defal jàppale wax la ñun dañuy wax li nga xam ne moom lañ wax suñu digganteeg ki ñuy jiite li na ko waxee nag ñun ay góor lañ ñoom ay góor lañ léegi nag waxi góor góor ko mën a faj mais bu leen waxee waxi góor ñu tontoo ñu tontu boo xam ne xaar ñu ko ci ñoom loolu itam saanu saanu ba du du ñu neex suñu neexul nag am nañ droit ak ñoom am fu ñu jaara ñoom ñu seet méthode bu ñu def jaara ñoom foofu lañ jaara ñoom waxtaan a ñoom ñu bañ waxtaan bañ ñu xaar ba un jour ñu waxtaan un mercredi jeudi ñu informer les régions vendredi matin ñu wax leen ne duñ sifflé vendredi matin bi ñu leen waxee duñ sifflé def nañ des voies et pour uti te pourtant nekkoon vendredi la nuit grandeur président Alioune Sarr mature am xam-xamam mayoon na ko mu woo Sitor parce que mook Sitor séq nañ ko bu dul Sitor sax war na mën a woo xalifa bi nga xam ne moo nekkoon ancien président CCA bi mu woo ko nekk xalifa sa booy kat sa booy kat sa booy kat xalifa dina woo Sitor su fekkee moom munul woo Sitor peut-être am na lu tax xaw ma lu tax mu wax ko xalifa xalifa bi nga xam ne mooy directeur technique te directeur technique bi Sitor moo nekkoon adjoint ñoom ñu waxtaan si mu ne ko ah lii lii lii Sitor na ñëwoo ñun ñëpp groupe yi ñu toog ñu waxtaan peut-être que ne solution mënoon na judd foofu mais nag bu ko deful dem soit di di di ñu wax ne peut-être am na benn lu mu mën ak moom woowee nañu ay arbitre def nañ ko peut-être mu nga ñoom ñu nañ la waaw waaw saa ñëpp a ko rek en tout cas man du ma du ma nekk fii di jugé non du ma jugé benn arbitre boo xam ne man peut-être si localité bi ñu nekk fa lay ñi dañu ñi d'accord non ànd lañ du wax xam nga arbitre dafa am par grade. grade local la ñuy commencé ah. ban international. Ah. donc grade ñoom ñi ñu jëli woon. peut-être ah. am na ay grade local yoo fa nekk am na ay départemental yoo fa nekk mais gisuma ca bokk régional bu ne bu ñaar ñoo am wala benn. kon daal di ngeen doon ce sont des arbitres locaux ba a ngi si mooy arbitre boo xam ne tege koo grade mooy koo xam ne da nga nekk si localité di fa arbitrer tey ji làmb fekk si la fa am ñoo xam dañu jàng formé wu. ñëw nekk échelon sa kaw donc mënuñu la fa jëlee parce que dañ ne jàngoo xam nga loolu mooy incriminer nit wala bañ nit ci loo xam ne passion am la ñoom dañu bëggoon di arbitrer tafay ñu leen tey ñun ñu ñëw def ëpp leen grade du leen fa jëlee ñun bu ñu nekkee Dakar fii amoon na fi. nañ daan beneen bi mooy dégg nañ tamit kii ministre bi li tax moo woo leen wax ak yéen ngeen bañ nag yéen it te ministre nag moo ñu jiite yéen am na foo leen teg seen tànk de. non bu woowuñu ñu bañ dafa woo Sitor kañ la woo Sitor le samedi bi nga xamee ne am nañ réunion hebdomadaire yi ñuy def tous les directions techniques tous les CRG yi war a tase à Dakar à l'arène nationale ca la CNG fekk yëg nañu affaire vendredi ca la CNG bàyyi ba samedi bi ñu ubbee ubbee wax jooju ñu ne ah arbitre dañ dem grève ci moment yooyu ñuy nekk di waxtaan di wax nii di expliquer à gauche à droite bi si toor peut-être ci si toor moment yooyu lañ ko woo ci li mu ñu wax. ci moment yi la nga wax ne ko Sitor je veux que ngeen arrêté affaire bi après ngeen ñëw ñu gisee Sitor ne nag du man maa créé affaire bi dañu nekk mbooloo te moment yooyu muy wax Sitor loolu waa CNG indi nañ seen arbit jëlee nañ leen film laa ñiy joof yoor xaw ma je pas bu ma juumee ci tur ñu baal ma ay film laa ay boof ay Kaffrine yoo indi arbitre pour xoolal fi ñu jógee arbitre fi ñu arbitre yooyu foofu ñu jógee ñu déplacé leen indil leen héberger leen gérer leen parler waat doon leen waat pass effort yooyu ñu dewoon ko bu ñu toogoon ñu waxtaan loolu dafay jeex moo tax dangi dangi ji ñu ne fi nekk yooyu yëpp jaru ko fi woon. mais nga mu ne ministre bi Sitor la woo expliqué Sitor dafa jiite kuréel. samedi boobu mu koy woo samedi boobu arène nationale ñoom avant seen réunion di pare supporter yaa ngi commencé dugg foofu woote ah, Sitor mënu fa woowaat moment bu fekkoon ne da ko def ministre dañu woo vendredi wala mu woo ñu samedi matin samedi matin la mais samedi à 11h ci biir réunion bi lan woo Sitor pour vous dire léegi nag bu ñu ko woowee nag Sitor il pouvait pas région yi nga xam bi ñu yëgee ko président CRG yi war a woowaat seen léegi day indi benn amal nga xam ne léegi ñoom indi nañ seen ab na abit yooyu couvrir manifestation mu jeex ñu woo wootante ñu waxtaan mais nag defuñu ko ñoom li ñu def mooy bàyyi boobu période boo xam ne lii nag ñu ne dañuy woo entendre ñu woo ñu dinu sanctionné te franchement parler sanction bi man li ma ci gën a poussé li ma ci gën a doy waar mooy tey comme je li ma ko waxee sama début rek pas ñoxor suñu góor gu baax la wala azim. dana ko. non dafa joué ci ñun lu bëree bari bari te gañewul dara ci làmb yàlla def tey mu noppalu ñuy xaar ba ñeenti fukki fanam ñun ñu koy préparé sa yaa di ko préparé benn affaire ay ñaan yu neex sax dama yàlla bal ñaan yu baax sax pour ala ci pour pour mu noppalu kaayam gën a féex. tey ji moment yooyu la sanction boobu dal ci ay arbitre yoo xam ne moo leen defar Paa Ñoxor defarul Sitor mais liggéey na ci Sitor defarul Babacar mais liggéey na ci Babacar Paa Ñoxor du woon arbitre kese ci ñun mais ab cheikh la woon ci ñun ñoo da ngeen ñuy sax ñun da ko doon tooñee fu ñu toogee ne arbitre rek ñu ne waa nan def ñaan moom rek mënu koy def bu ñu lii mu ne def leen ñaan def leen ñaan parce que dafa amoon gëm-gëm dafa amoon loo xam ne da ko bëggoon ci ci tarixaam wala ci diine ji tout le temps foofu la ñëw muy chrétien muy musulman tout le temps lu mu wax rek mu ne def leen ñaan wala azim moment yooyu leen xaar bu ñëw sampuñu benn sanction boo xam ne xaar ñu koy woon ci tutelle bi. kon Paa Ñoxor dafa desate rek ñu teg leen teg commencé leen teg ay fitna. non Paa Ñoxor gaañoom fekk na mémorandum bi sax duggoon na avant muy gaañu avant muy feebar sax. mais après waxoon ngeen ko ko. non moom yëgul na ko na sax ne bindu nañ mémorandum dugal ko. mais tout le temps moog Sitor ñu doon wax xaar leen xaar leen xaar leen si ñoom ñooñu ñoo gën a tax sax affaire bi toll ba fii ñu egsi ba fii mais daaw sax waroon waroon nañ ko def mais ñoom tout le temps leen def leen daan xaar def leen mais itam seen jeu woon woon attendez je vais voir attendez je vais régler attendez je vais régler jusqu'à au moment où Sitor ñu dem nag ñu ne Sitor ñu ngi ci début de début début d'année bi suñu dugalul li ñuy dugal année bi bu jeexee on va attendre encore ñeneen ñëw wala président nekkaat fi ñuy bindaat bindaat leen def li ñuy def léegi su at ñu wax ñu mën nañ ko wala mënuñu ko te ñoom tout le temps dañuy tourné ah, at bi at bi ay bénévolat lañ benn bénévolat nag su fekkee ne peut-être doo ko fay wala li nga koy fay ko dara su ko neexee toog ne tey du ma arbitré. dañ leen di dal. ñu ne lépp lu Alioune Sarr def benn waxtaan nañ ci ak yéen la preuve en est que suñu papa Doudou Diagne Diecko ba léegi mu ngi doon wax ni euh, mooy euh, mbër yi nga xamante ni ñoo fi nekkoon ko ci mel ni suñu papa Kayre ay ak Baboy am na benn jubilé bi ñu doon def fii. xam nga affaire bi ñu doon wax sax affaire ay fay entre fay ak bu ñàkk a fay si ñi sitoor si ñi wax ni carrément na mbëri di fay ci lañ bokk parce que nekkuñu ay lutteurs yoo xamante ne international ah. waaw kon donc ñu bari na ne yéen ak euh, wax dëgg yàlla ak suñu papa Alioune Sarr décision bu mu jël arbitre yaa ngi ci mais ngeen bàyyi ba tey xam nga yooyu yëpp ngeen kii ko taal yéen tamit gars yi da xaw a doy waar tuut tuut nag yéen arbitre. non ñun ñun ñun nekkuñu ñun sitoor mooy suñu représentant loolu mu wax noonu sitoor moo la ci a tontu man nekk

ñun texte la ñuy arbitré franchement parle texte la ñuy ndax man sax dégg naa ca Lac de Guiers ci ay waxam mu ne àqu àq àqu arbitre yi ñoo ko dal ñun àqu àqu kenn daluñu ñun amuñu àq ñun parce que moom su ñëwee ba ne di et puis la désigné du doigt Malick sama àq moo la dal noonu la def Malick sama àq moo la dal di reetaan nag non attends rek non dane Lac de Guiers jëli nañ ko dane arbitre waa sama àq leen dal mu reetaan mu ne sama copain Malick ci la bokk après waaw loolu la ne la désigné du doigt Malick te naa la daj tey benn benn benn benn benn fee bu am tey ji ñun dañu weex donc mbër bu nu woo rek ñu defee ne ñu doon ànd ak mbër wala mosuñu woo mbër mosuñu woo amateur xam nga lu tey yaayu Lac de bu mu gaañoo Malick il a pris son téléphone pour avoir le numéro de guerre de pour jaale ko Malick laa la wax amu ko mu jaar ci Alioune Seye 2 Alioune Seye 2 moo ko jox numéro Lac de Guiers seul Malick mooy un membre de la CCA bu woo Lac de Guiers 2 pour jaale ko yaayam même bu fekkoon ne da ko dafa yaakaar ne Malick da ko tooñ ci réglement na xam ne Malick règlement la arbitré mais arbitré wul aqu boppam. parce que boobu ban combat la woon. Lac de Guiers de Modou Lo. mooy moo nekk arbitre central moo arbitré ko bi donc moom moo am droit d'aperçu sur. les sorties les anti-jeux ainsi ku fa def loo warul def par rapport au règlement mu teg la ne du defoo lii règlement bi lii la wax lii lay def te Malick doon la appliqué règlement man je n'ai jamais vu Malick mu am benn kii te gis nga mbëri li ñuy wax noonu seen meilleur copain ay arbitre la ñuy te bu ñu tasee man man fii laa dëkk un grand champion mu ngi dëkk fii Yara man arbitre naa combat dafa daan waaw arbitre naa combat dafa daan su ma neexoon ma ne dama koy jàppale parce que ñoo dëkk mais j'ai pas vu sax xam nga lu ma gis topp le réglement topp li ma yoon wax parce que soo defee leen loo xam ne waroo ko def sur le sur le règlement nga jégadi ko boo ñëwee yow lañ jëkk si xas nekk looloo ñu doon indil suñu voix des fois du bari lu ñuy wax gis nga am na ay temps ta pa Moustapha Ndiaye xaw bu ñu nekkee sport de chez nous la doon jë sax journaliste daw ci abit loo gis mu ne diw daan na diw loolu rek foofu lañ la doon ñëw mais ñun sañoo wax loolu sax xam pour lan pour protéger l'intégrité de la CCA du corps ndax dañuy bañ nga wax ne kii daan na kii ndekete daan boobu amoon na sit bu ko jiitu ndekete juum nga yooyu lay éviter parce que am arbitre day juum mën nga wax diw daan na ndekete daan mooy de bi gis na ne moom daanoon na waa ji avant donc arbitre bi wax na loo xam ne amul moo tax ñuy éviter léegi léegi dañuy bàyyi ba ko bàyyi jeex yóbbu rapport yi CNG mu mbër bi defee recours ñu wooñu nañu mbër bi de def na recours temps léegi yéen bi après ñun léegi sax loolu sax gën nañ ko def parce que mbër bu defee recours dana war a woo arbitre bi arbitre ko wala trio bi arbitre ko ne leen seen combat diw am na problème bàyyi nañ ko dama ne la bàyyi nañ ko ñu dama ne li ñu li ñu dindil moo bari avant lii di am ok koy dañ leen doon néewal doole mën na nekk nag ñun li ñu dindil dafa bari de tey jii ma ne la sur les sanctions yi ñëw nii Malick Babacar avant avant avant ñuy sanctionné ay ñoom si tool sur, la réunion Alioune Sarr il a dit li mu def c'est une faute très très très grave une telle faute faute très boo ko à la réunion am na lu lay xaar le président de la commission euh, euh, kii kii discipline Babacar notre cher frère Babacar il a dit que en Amérique depuis l'Amérique il a appelé pour dire que ne Sitor il mérite d'être sanctionné il mérite il est presque out. Babacar président Babacar président chargé commission règlement et discipline. il a dit en réunion en pleine réunion ba pare woo leen di leen yow yaa ngi wax kii il est out kii il lii ba pare deuxièmement Sitor moo fa ñu ko Babacar lu mu def Babacar lu mu def day dégg lu mu def Dramé ñu jël ñi nga xam ne peut-être soi-disant. Ah, yéen a ci gën a fës rek. fës comment ñun ñëpp a fës man maa ngi nii tey dox man nekkuma fii rek laa mos a waxee keneen wax na feneen keneen wax na feneen parce que toog naa Xadim Samb ci plateau mu ne ma yow la sax ñu man problème mooy arbitrage laa laa laa am yàlla na tomba ko ma koy def man du ma du ma du ma optionnaire de combat man optionnaire de football laa mais nag làmb bu la ko yàlla bëggaloo du mu la koy bëggaloo yaa yaay dem des formation ak say critères ñi lay ñi di la xool la xool ba yaakaar ne war nga mën a teg à la hauteur nga nga egg foofu soo egg sax après la ci des nag yaay mottali sa ful sa ngëm-ngëm li pour dem a dénigrer kenn daal donc quand ils disent que ne arbitre yi sunu àqaleen da war ñu doon far ñun faruñoo kenn ànduñoo kenn musuñu woo mbër ne ko kaay jàppale mbëri ñoo xool ne arbitre yi ndikati lii yëpp ñu ngi koy dund ci làmb ñii daal te ñoom dañu nekkoon ci benn affaire non ñun dañuy dégg ñu man doog man en parce que bokkuma ci bureau CCA bi mais un mais ñi nga xam ne bokk nañ ci bureau bi peut-être un mali ci bureau bi la mooy secrétaire général bi peut-être ñu ngi koy woo Sitor mooy sunu président Babacar peut-être mooy président chargé de la lutte sans franc waaw mbëri ci fës man ci net bi nii laa gisee ci presse bi nii ñuy wax nii rek non ñëpp rek fii mbër yëpp a fës ah. man ñëpp mbër yëpp fës ah. bu daa àdduna mbër yëpp a fës ah. ñi fësul peut-être que ne amu jot wala ñi nga xam ne itam ne ñun liñ def ànd nañ ci ànduñu ci ñoom itam seen dañ leen koy nangul seen seen seen kii ne ñu dalal na ki nga xamante ni moom mooy Tidiane Ndiaye mu nekk ki nga xamante ni moom it tamit ci représentant ci li nga xam te ne moom mooy membre de CCA la moom lépp muy Malick Ngom muy Sitor ñoom ñëpp li ñuy wax rek kenn ku nekk euh, dañ lay kii rek dañ lay pousse rek kenn ku nekk ku dégg lu gars yi wax rek kenn ku nekk ak fa ngay fëlee mais moom bokk suñu ko dàq de mais instant bi daal dafa dafa waali yaane quoi xaw ma dafa solide dafa dafa solidaire xam moom arbitre ñoom mais benn mooy wax nga ko léegi sànq ci Lac de Guiers mi ngi naan sama àq moo leen daal mais ñu dégg tamit ki nga xamante ni moom mooy suñu papa du euh, mooy Kati Diop ñu koy nuyuwaale au passage dem mu def benn sortie sortie bu yëngal àdduna léegi yooyu yëpp xam nga yaa ngi doon wax Lac de xam nga affaire recours après moom mu ñëw confirmer loolu mu ne recours yi yéen mu ne recours yi yéen ñan. parce que waxul ne recours yi musul egg CNG arbitre ñoo koy jot. yéen yéen a koy seddo ñoo koy séddoo ñun comme li nga waxee rek. man rencontré naa ko drapeau chef de l' état bi passé à bokk nañ doo table reerandoo vraiment mu nekk itam jusqu'à présent ku nu naw ku nu estimé parce que jaar-jaaru làmba moo doy noonu et ci famille am famille am biologique moo demee noonu Jóob la sant su ma sañoon sax du wax ci du ma wax si njóobeen parce que man Njaay laa sant bëgguma wax si njóobeen parce que njóobeen yi non njóobeen dañuy tardel dëkk bi quoi ñoom samay kan lañ dañuy tardel dëkk bi quoi donc mu nekk góor gu nu respecté ku nu estimé man dama defe ne bu temee ba toll niveau boobu di diriger l'un des meilleures écoles de lutte du Sénégal buy wax dafay waxee auteur quoi day waxee itam lu mu xam duma ko du ma ko du ma ko bañal rek lu muy wax mais nag franchement parler dafa war a am hauteur la parce que mag la kilifa la te ñun suñu kilifa la mënuñu koo wax dara parce que moom Dakar la dëkk ñun Dakar la dëkk mënuñoo wax ci moom leneen lu dul que ne buy wax rek na xoolaat bu baax li muy wax c'est pas parce que dafa am parti pris moo peut-être président Alioune Sarr wala dafay jàppale Alioune Sarr que wax lu neex nit ñi pour non dama ne la li muy wax. ah jàppale Alioune Sarr kay ba Alioune Sarr parce que il est il fait il fait partie des conseils de monsieur Alioune kon Alioune Sarr moo donc bu ko yoon man loolu non waxu ba loolu dama ne la li muy wax na am auteur bu koy wax parce que ñun ñi muy indexé loolu ñun xamuñu recours fu muy jaar xamu bu ñu koy bind du ñu yëg ñu koy bind ñun xam lu ñuy bind texte mbër bi ñëw na def na tant de minutes bind nañ ko am na tant d'avertissement bind nañ ko lii. bu ñu demee CNG nag seen réunion la ñuy def la ñuy dagg la ñuy dagg mosuñoo dagg mbër arbitre xam lu ñuy dagg wala arbitre gis lu muy dagg arbitre mosul gis xaalis fu fu ñuy daggee. pour te dire sax en lutte avec simple inscription yee dem foofu il faut des temps bi ñu jëkk commencé dan nañu yéen yéenay récupérer xaalis bi ñun ñoo ne ñun duñ mës a laal xaalis inscription mbër duñ ko laal parce que bu buñ ko laal dañuy defee ne ñun dañ ci am dara te amuñu ci dara ñoom ñoo mujjee désigner un superviseur buy ñëw foofu ñun gis nga bu ñu ñëwee ñun lutte arien cinquante day dafa war a commencer à 6 heures moins le quart 5 heures 45 ñun en tant que arbitre 3 heures war fekk trois heures xoola dimanche trois heures kañ ngay añ wala nga toog noppal wala yooyu yëpp doo ko am mais parce que dañ la désigné da nga war dem foofu heure boobu sinon boo fa demul heure boobu tu es d'une sanction pécuniaire bu la fa heure boobu fekkul donc da ngay nga dem loo mën a noppaloo wala loo mën la nga def man loolu laa xalaat boobu. te bu ko nag war am na côté yoo xam ne dafa xaw a sensible war a jo wax parce que bu ñëwee boo wax loolu daf ñu jiñ te ñun vraiment loolu. ñun ay ay ay xaalis yooyu ñuy dagg ak yooyu kërëb kërëb loolu na xool moom ñi ñi ñi ko peut-être ñi nga xam ne ñoom lay àndal liggéey na leen laaj kon xaalis boobu fan la nekk. waa xaalis boobu la ah dama ne la conseiller Alioune Sarr du bokkul ci biir mais conseiller ah, monsieur Alioune Sarr la voilà par ah, si parce que tamit xam nga lan moo ma xaw a jaaxal mooy Basirou dañuy waxtaan mais sa waay dafa mel ni bugul bugul kii du non bëggul laal affaire parce que xam nga mi ngi mel ni fekk benn góom. yow xam nga góom ni ñu koy fajee. mais moom dafa mel ni alcool beeg kii du ko ci def daal yow da ngay da da ngay kii day bëgg a wax mais du bëgg wax ji daal jàdd xam nga xam nga perkat yi li mu wax yéen loolu ngeen di démentir ne ngeen maîtriser wu ko beneen bi mooy que ni affaire recours yi muy wax loolu noonu nekkul loolu ngeen bëgg wala da ngeen koy am. man mot bi nga employé du ma ko employé. si ah. kanam paakati Diop du ma employé le mot du ko li muy wax balaa mu koy wax na am ay source ba pare na am lu ko ci leer moom bu fekkee dem na bay wax ci problème mu xaalis boo xam ne CNG moo koy naw na na xam bu baax lu mu koy parce que xaalis dafa sensible si lii que ne xaalis recours yi arbitre yi ñoo koy yor vraiment lii c' est aller très loin c' est aller très loin xaalis dafa sensible toog CNG CNG pour te dire sax bi ñu jox euh, suñu per diem ñu ñu jox après combat le mardi lañ koy jox suñu ku koy jëli ñun mercredi la ñu koy jox en réunion nañu yéen lii ngeen am yow lii nga am li nga nga paas ñibbi te da nga war a ñëwaat bi da nga war a dawaat ñëwaat pour pour pour pour àdduna si waat ba bu fekkee désigné nañ la donc yooyu moo tax ma ne la bu fay wax na xool baal parce que kilifa la ñun suñu kilifa la waa Dakar la lébu ndakaar la am na tur ci dëkk bi te nit ñi estimé woon nañ ko te man franchement parlé lu ma ko estimé woon tey laa ko gën a estimé mais franchement parlé am na lu mu wàññi ci man vraiment xalaatuma woon moom foofu moom lébu lébu la man ci lébu yi laa yaroo du ma ab mais yaraax laa dëkk fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yaroo ci biir lébu yi laa juddoo donc moom lu muy wax rek dañ leen nawoon par seen dëggu dañ nawoon par seen mën a wax dëgg mais franchement parler lu muy waxati nay xool degré bi mu koy waxee ak na ndegam comprendre na ko ba pare daal waaw. kooku kon li mu wax nii daal waxul ko ah, man daal ànduma ci daal man franchement parler li mu wax nii man ànduma ci ak moom daal. ba loolu musul am. loolu musul am ci àdduna. bay làmb de làmb ba léegi xaalisu recours arbitre yor ko musul am ci àdduna. te keneen koo dem na dem yow fexeel am benn élément CNG lii mu wax bis boo amee benn élément CNG da nga ko ci laaj soo ko ci laajul nag ñun arbitre nañ la mere. dinaa ko ci laaj voilà voilà dañ la répondre ñu lay def nañ la répondre loolu wala ñu répondre lu ko gën a foros sax mm. voilà. kon instant bi yéen fan ngeen jëm instant bi gis nañ ni feebar bi moo leen tënk mais yéen lan ngeen di fas yéene def daal lan ngeen fas yéene def instant bi. non fu mu nekk dëkk bi stand by la nekk feebar bi moo monopoliser lépp lépp lépp yow li ngay def nii sax. bëgg sa liggéey ak peut-être bëgg sa organe liggéey moo tax koy def mais tey ji sax mënoon nga toog sa néeg nga def say liggéey en ligne yëpp mën nga ko def mais tey ji peut-être comme ni ñuy wax rek natt bi nu dal ci làmb moo la dal ci reportage ak euh, genre animation bi daal donc comme feebar ñëw na ñun am nañ ay voies yu ñu jëmoon xam nga toog fii tam waroon nañ def point de presse si point de presse bi waroon nañ am yu bëri yu ñu war a partagé yoon ak le monde donc suñu toogee par rapport ak presse bi yëpp lépp ñu wax ko lépp ñu wax point de presse bi amat dootu dootu am yoon am nañ yoo xam ne ñu ngi ak moom ñu ngi ay scoop yoo xam ne ñu ngi ko denc préparé woon ko point de presse nañ ko dencal point de presse bi ñan ñan yàlla lii rek jóge fi lii bu fi jógee peut-être li nu war a xam nañ ko xam li nu war a def nañ ko def nañ ko def mais lii peut-être que ne tout le temps di regretté mooy kuy nekk suy wax rek nay su fekkee génn na laaj ko ci affaire arbitre bi mënu ci wax na ne rek ay mots yu diis. quand les mousses et moustiques qui nous piquent. Mm-hmm. pour l' instant ñun ñooy wax. Uh-huh. soit disant wax jooju ñoo ko moom. Ah, ah, man dama ne ni mu waxee. Mm-hmm. soit disant ñu ñoo ko moom ak uh-huh. ñeneen ñiy wax. les mousses et moustiques bu fekkee ñun moomuñu ko sax ci ci ñu mu ci boole. yeneen mousse yi après ñeen ñi jàppale ñooy moustique yi xam dox man ne la. su fekkee dañuy wax. Ah. njiit dafa am ay mots yoo xam ne war ko employé ci ay. ay ay ay employé wala boog ay ñoo xam ne ñoo bokk di liggéey. Ah, ñun waaw non dafa rafetul sunu moo yooyu dafa rafetul mu teg ko sunu der. Hmm. wala dafa rafetul mu jàkkaarloo ñun wala muy tokki ci boo xam ne mondial presse mondiale la mu waxee noonu parce que li mu wax dafa dafa wër le monde. Hmm. il se prend pour qui pour dire ça. tout le monde nous dit ça mais bu dee wax wax lu ñaaw la rek ñun egguñu foofu on a un problème su mett nañ ko sunu problème mënu ko régler ñun def nañ lii. jeex na moom la a vu que le li koy léegi la mooy suspendre suspendre na ku nekk na seet lu muy jaar pour am voyage am mu am. mu Gaston da neen leen xamal moom. non moom xam nga man dama koy bàyyi ak ay moom lu ko neex mun na ko wax. parce que li mu ñu xamal xamal parce que naa la xamal benn affaire ci Père Gaston il a parlé de sponsoring. xaalis sponsoring il a parlé de ça gis nga xaalis sponsoring. ar galaay yi mu doon tëgg orange da ko doon nga baal ma. non garaaw waaw donc dafa amoon ñu ko doon sponsorisé ñu ko doon sponsorisé dañ ko joxoon xaalis sponsor. la sponsoring on a vu que ne suñu demee ba combat ba mbër yi mun bàkkoo ñi ñu yore tenue sponsor dañuy dem à côté mbër yi balaa ñoo bëri dañuy simi sponsor bi ñeen rek ñooy des si géew ñoo xam ne dañuy sol yëre mooy les arbitres pourquoi pas ne pas inclure les arbitres dans le sponsoring ñu ñëw wax ñu ko bi ñu ñëwee wax ñu ko ñu ne ah ñun ñu wax suñu xalaat boobu xalifa moo nekk président CA nag xalifa yóbbu ko au niveau CNG waa CNG ne ko yéen rek nekku leen fi ci corps bi sponsor bi ñu ñëpp koy bokk arbitre yi médecin yi superviseurs yëpp yëpp léegi ñu bu ñu jëlee nag ñu génne Gaston génne xaalis sponsor bi soit disant ñu ne xaalis sponsor bi 300 la 300 francs la léegi non xaar rek ñu ngi xaalis ton 300 la léegi lii arbitre yi ñoo ko moom lii médecin yi lii superviseurs yi léegi nag xaalis globalement li xaalis yi moom jour boobu arbitre du CRA bu Dakar comme lamb ji Dakar la xewee CRA bu Dakar loo ñu moom arbitre Dakar yëpp amul kii bokk na kii bokk sponsor boobu ñëpp ko séddoo te ñun xaalis boobu ñu ko joxoon sponsor mhm. boobu. ñam ngeen rek. non dama ne loolu Gaston ñamul sponsor moo ko def. mais Gaston moo tax affaire boobu am. waaw on n'en disconvient pas. mais dama ne la c'est dafa waxee noo xamee dafa defe ne ñun doon jox xaalis bu ngand mhm. te franchement parler quand je te dis que xaalis bu ñu pour te loolu tax ma ne la peut ni muy waxee donc il faut que moom itam mu mesurer ay moom mesure xam peut-être que ne ni muy waxee nan la daal parce que ñun tam comme ni wax ñun ñëwuñu pour polémiquer ak Gaston ñëwuñu pour polémiquer ak kenn ak kenn dañuy indi ay éclaircissement rek lii làmb la. dafay jeex buut yi daal en tout cas ñu ngi fi. benn buut ay ay ay tiñalaate rek moo fi ay rek moo fi am. moo tax seen ànd daal ay tiñalaate rek moo fi am. seen ànd xam man daal la lay ñaana ah, papa Alioune Sarr yow suñu papa suñu lépp di la wax xam nga rek waxtaan leen daal ba juboo parce que lii tamit ah, xam nga ay nit bu ñuy ànd daal dem ba benn instant xam nga kii di waxee gauche kii di waxee droite te yéen yéen a faroon xam nga yaa ngi nii ñam nga ci affaire yéen arbitre ñam ngeen ci affaire per Gaston yi kon yéen a far rek na. <laughs> ñun jusqu'à far de peut-être que lay ñàkk juboo am na ñoom ñu def leen neex ñu ñu xool li leen def ñun ñu def lii. mais jusqu'à présent ba léegi ñun amuñu ak problème tey jii xam nga lu rafet ëllëg bu ñu jàkkaloo ñoom bu dul làmb bu ñu tasee ñun ñu jox ñu loxo ñu jox leen doy ñu reetaan ñu reetaan adduna amul solo. muus yi leen tuddee métti na ma trop ah, wax dëgg yàlla. Oh, <laughs> euh, sa temps bi li nga xamante ni euh, temps bi jeex na te wax dëgg yàlla am na lu point yu bari yoo xam xamante ni leeral nga ko fi di wax rek ah lan mooy sa kàddu gu mujj. kàddu gu mujj gi daal mënul lu dul ñu ñaan yàlla. ëllëg kii fi dugg affaire bi xaw ma coronavirus bi dugg fii ci dëkk bi yàlla génneel ñu ko parce que vraiment dëkk bi taxaw na te dëkk bu taxawee day métti ci ñëpp. du si pour ñuy julli ñiy liggéey ñu dul liggéey ñëpp koy sentir parce que bu dee yow da liggéey sa frère doon góorgóorlu sa frère il est obligé mu toog kër ga parce que ba mu doon góorgóorloo tëj nañ ko donc yow tu es ci li ngay gagné lépp ngay dem jox sa frère mu dund ñeneen du ñu donc dafay métti ci ñëpp ci ñëpp ci ñëpp donc comme état baa ngi def des voies et moyens pour ñu jéem a éradiquer feebar pour ñu jéem a itam xeex bi comme ci dans tous les ñu ngi jéem a xeex donc nañ ñaan yàlla yàlla jëlee ñu fi xeex feebar bi tey jii bu fekkoon ne feebar bi amul pour nga ñëw fii da ngay da dellu parce que da doon xaataa xaataa xat comme c'est pas la peine mais nag tey feebar yàlla indi na ko fi nan ne yàlla moo ko indi mënatuñu dem ci jàkkee yi parce que instruction la nan toog suñu kër ñu julli parce que yàlla mu ngi fépp ah. waaw am na wax yoo xam ne di ko fi wax pour yàq der nit wala pour salter der nit wala pour dénigrer benn groupe jaru ko fi ñu jusqu'à présent li nu xam li nu wax di ko wax te lu wax rek. dafa fekk ne Sitor da ko jëlee réunion ñu war ko partager ak Manu Party Sitor du jógee jamais réunion CNG mu ñëw ne lii wax nañ ko fa te concerné wuñu lu nu concerné danaan ne lii moo concerné arbitre yi lii laay wax lii concerné wu la du ko wax sama yoon new si te foofu la foofu la ay cëram yëpp donc encore une fois di ñaan yàlla yàlla yàlla jàppale yàlla dàqal ñu seytaane yàlla yàlla may itam xolu muñ comme ni koy waxee rek yéen tam yàlla jàppale leen si liggéey vraiment yéen a ngi def daal yéen a ngi def bës daal <laughs> ok yaa di leen remercier waat bu baax a baax ah, muy Tidiane Ndiaye ñu ngi koy remercier moom it ci bu baax a baax a baax Mali Ngoma ah, yéen ñëpp ñu ngi leen di remercier kon di ko wax rek loolu jàmm jàmm ko gën muy ah, waa CNG suñ papa Alioune Sarr suñ papa Makhtar Ba naan comme que euh, gars yi ñoom ñëpp benn lañ te dafa neexoon ba pare muy arbitre mënuñu leen fee génnee parce que dañoo bokk suñu ñii lañ xam kanam yi lañ xam kon donc nañu waxtaan rek ba juboo parce que loolu jàmm jàmm ko gën te euh, làmb dafa nekk loo xam te ne facteur de développement la kon daal papa woo leen dem ñun ñëpp ñu waxtaan juboo beneen bi mooy ah di remercier ñi nga xam te ñoom ñooy les amis internautes ñu ngi leen di béggee bu baax a baax ne gis naa leen na yéen a ngi siy jàpp kon ni ñu koy waxee rek naa yéen ak ñun ñoo far parce que yéen a ñuy dooleel te gis nañ lépp l'infatigable ah le messi Basirou maa ngi koy bégewaat bu baax a baax a baax a baax a baax ah waaw waaw waaw les fatigaawul Basiru maa ngi koy bëggee bu baax a baax naan ko jàpp nga ci bu baax a baax di bëggee ñëpp mais di remercier ñi nga nga xamante ni moom moom mooy solal ku ci mel ni laaya ah, moom ma solaloon ah ba may kii Lac de Guiers numéro 2 tey tamit may demaat ah ñoo seet si Tidiane mu kaay ma solal la maa ngi lay sa jàmm yàgg nan la wasaare làmb nii rek lañ koy defee dañuy fo commencé guñu di wax loolu jàmm jàmm ko gën kon donc yàlla ñu yàlla may jàmm dañuy defaat nii rek dem xooliwaat keneen koo xamante ni war nañoo waxtaan moom ci li nga xamante ni moom mooy làmb ak ci li nga xamante ni moom mooy arbitre ak CNG comme que moom moo xew gars yi moom la ci bàyyi ah dañ dem rek lu ñu lu ñu am jël teg ko wasaare parce que parce que gars yi comme que miin nañ ñu te chaque jour ñu ngi ñu xaar ci lu bees kon yàlla nañu yàlla jàppale rek jaajëf.